nuyu nañu leen bu baax jaajëfe leen ci bi ak qualité bi ci seen chaîne cassette TV dikkati nañu ci vidéo buy gàtt lay doon ndax xibaar rek lañu leen di jox jënn xibaar bi mooy euh, ki nga xamante ne di meeru Guédiawaye El Hadj Ahmed Aidara xam ngeen di jàppoon nañu ko fan yële ñu jënn ci manifestation bu yeewi askan wi doon amal. ci ndakaaru mom sa danaka du ci manifestation bi lañ ko jappé ndax ci suba lañ ko japp bobu manifestation bi xaajul bay tambalé mom El Ahmed Aidara procureur dadiko door mandat euh, mandat de dépôt Tei ñu atté ko tay euh, lundi yem ak euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar wéru juin 2022 ñu atté ko procureur d'adi la ñu tëj ko lu toll ci juroom benn ak euh, ci juróom benn weer yi ñu tëj ko benn weer un mois ferme benn weer boo xamante ne dina ko tëdd kaso waaye ki nga xamante ne moo di juge bi toppul procureur ndax euh, juge bi dafa daal di libéré El Hadj Ahmed Aidara ak ñëpp ñi nga xamante ne jàppoon nañu leen te ñu àttee leen ca euh, tribunal bu Géejawaay donc jàppale ni El Hadj Ahmed Aidara libre na ñibbi na këram ni ki tey dina fanaan ci wetu njabootam donc xibaar bi lii la woon ñu leen di jox dig daje ci beneen vidéo bu neexee suñu borom laata loole ngeen partagé waaye ngeen abonné wu yéen mi nga xamante ne defoo leen ko jërë ngeen jëf